asiru ju jëkk ji mooy maa ngay dox maal muxtaari ànd ak rasulillahi ku ñu tànn ka yii na asiru waxtu ba may dox ca tund jeewal muy ñaari asiru yu bokkul wa zannal idaa nii te la nga xam ne noon ya ña ngi ko jortoon ca man unaaka foofee dañoo jàpp ne asiru man mi ab prisonnier la te nga ci yetti asiru yi te benn bokkuñu ak morom ja lañuy ñuy firi loolu mooy jinaas mu ne yow sunu borom yaa gërëm samay jinaas ci samay mbind ci samay woy walaa li nga àggale ko ca njaboot ga muy teraanga ak jàmm wala asaabi àggale ko ca saaba ya bi tasliimi ànd ak sa kaaraange ga amiin yaa waaxi ba taqriibi yow sunu borom yaay maye ak jege yàlla waa takliimi yaay maye kàddu yu sell ya salli ala rahmatin yàlla na nga dolli teraanga ak jàmm ci caabe yiw yërmande duxii ta ees di ko wooye miftaaha jannatin caabey ajjana ji seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam musilal bidahi ka nga xam ne moo fi génne bidaa wasaliman alayhi ta nga dolli kaaraanga ca jëmam fil aali àggale ko ca njaboot ga ashiraaf ñay ay shérif wa sahbihi nga àggale ko ca sahaba ya yaa man yubaahi bii shiraaf yaay buur bu sell bi nga xam ne yaa def ñu di ma puukare woo man sëriñ Tuuba ca shérif ya ndeysaan sëriñ Tuuba nee na salli wa sallim yàlla na nga dolli teraanga ak jàmm xaaliqal azmaana yow buur bi bind jamono yi yëpp ala ci ku ñu solo kii di muhammad alamil imaani ki nga xam ne mooy raayaawu ngëm yàlla wa alihi wa sahbi nga àggale ko ca njaboot ga ak sahaaba ya wasxal nii yàlla na nga def mu doon sama soxla bi ma tuhiibu ci lépp loo xam ne yow sunu borom bëgg nga loola wàccaxal nii ni na nga ma defal man sëriñ Tuuba sahida may borom ak texe yaa man yaay bu tedd bi nga xam ne loxo yaa moom arkanu mboolem yëngutu ya mbooleem samay jeng ma nga jëm fa yow sa yaqiini ànd ak kóolu téef salli wa sallimi yal na nga dolli teraanga ak jàmm bi jamihil aali àggale ko ca mbooleem njaboot ak muhammad wa sahbihi nga àggale ko ca mbooleem sahaaba ya fil ci teew muy fii ci àddina wal mahaali ak keroog pencum yowmal xiyaam amin salli yal na nga dolli taraanga ju sax dakk ma tasliimi ànd ak sa musal ak sa kaaraange sal mayraati yow yàlla mi nga xam ne yaay boroom xont ya ala nabi ci ku ñu solo kii di seydina muhammad dalailil xayraati ci kii nga xam ne mooy digle mbooleem yiw ya di seydina muhammad yàlla nga dolli teraanga ak jàmm wa alihi àggale ko ca njaboot ga wa sax bi àggale ko ca sahaaba ya téere bi lépp ay julli ci yonent bi la lépp ay salatu ala nabi la sawil xamal ñay waroom jëf yu sell ya wàcc xal na nga def yow sunu borom bii ci darajay rasulillahi saa nasma téere bii ngay jàng di jaali batal maraqib afdal amal mu nekk ca ngën ji jëf ya salli ala musahihin yal na nga dolli teraanga ak jàmm ci ku ñu sellal kii di seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam lil xasanaat ñeel mbooleem xeeti yiw ya maasalaamin nga boole ci sa musal ga ak sa kaaraange ga musal ak kaaraange goo xam ne jaali bin day ñoddi li xasanaat ñeel mbooleem rafet rafet ya amin yal na yàlla nangu yaa ngi jàng téere bu ñuy woowee jaali batal maraqib te sëriñ Tuubaa nee na mooy ñoddi mbooleem xemmem téef ka koy jàng yàlla nañ ko yàlla nangul sëriñ Tuubaa nee na téere bii képp koy jàng mbaa nga di ko déglu ñu di ko jàng mel na ni yaa ngi toog ci sama kippaar bop ma yaral la sama bopp man sëriñ Tuubaa yàlla nañu yàlla nangul coono yépp wasalaamualeykum